Eh, ñaanalaat sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yal na ko fi yàlla gën a yàggal te gën a dolli ak wéram eh, noo ngi amaan mbégte di ñëwaat ak yéen seen émission bi nga xam ne moom lañ ko duppee xawlal madahibil arbaa ngeen di ci mën ànd ak seen bokkum taalibe Fallou Gala Sill ki nga xam ne moo ñu koy leeralal di sëriñ Abdou Lahad Sané bokk yi ñuy jaajëfal ñi ñu topp ñëpp ci émission yi weesu rawatina tomb bi ñu taxawoon te moo di imaam Malik di e, jàmbaar ji nga xam ne xam-xamam e, tisaaroo na ci àdduna bi waaye am njàngaleem itam leer na ci dënni góor yàlla yu bare bare bare tey jii nag bokk yi ñu bëgg a ñëw ak e, Cheikh Abdou ci sunu ñaareelu imam bi di Abu Hanifa yaakaar naa ne Abu Hanifa bokk na ci itam ñi nga xam ne ci borom mashab yu mag yi la bokk doon it borom xam-xam bu yaatu bu am njàngaleem tisaaroo ci àdduna bi moom itam e, donte ñun ci mashabu imam malik lañuy sukkandiku waaye teewut nag e, ñu bëgg a jàngaat kan mooy Abu Hanifa ci porte la ñu wan wax ñu jëmm ji ak moom Abu Hanifa ban wàccuwaay la am ci xam-xam ba mën a ber am ngërëm te ñu bari jaar ci waaye nag ñan ñoo di ay sëriñam ak ñan ñoo di ay taalibeem bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi am mbégte dajawaat ak yéen ci sunu jataay yi xawla al madahib al arbaa mu doon jataayu gaaral li nga xam ni mooy dund ak jaar-jaar ak madahib yi imaam yooyu ñu naan al aymatul arbaa xaasatan ak yeneen imaam yi nga xam ni dañu yoroon yi ngir waaye seen ngir mu jaraaf gent mu doon jataay yoo xam ni ñooña lañ ciy jàngat seeni mbir ak seeni eh, madhab Eh, jataay yi weesu nag eh, taxawoon nañu ak yéen ci eh, gannaaw njiitlaay yi ak laltaay yi jataay yi taxawoon nañu ci gaaral aslëf ci imam malik ak madhabam ñu waxoon ni incha allah moom la ñuy ubbee ndaxit nag ay malikiya lañu waaye bu ñu ubbee ci moom dinañu jox imam bu nekk ay émission ak ay jataay yoo xam ni danañ ca leeral imaam boobu ak ngiram ak ay taalif yenn ci ngiram ak ay taalibeem eh, bu ñu jeexalee imaam yooyu eh, dinañu dalaat delluwaat ci imaam Malik eh, radiyallahu taala anhu wa anhum leeral leeral gu gën a yaatu ci lu aju ci ngiram ak lekkool yi ne ci biir ngir wi ak taalif ya ca ne ak li nga xam ni mooy ixtilaaf yi ne ci biir ngir wi lan moo ko waral euh, tey nag comme ni ko sëñ Fallou waxe léegi euh, dinañu euh, taxaw ak ay bind yu aju ci al imaam Abu Hanifa Abu Hanifa moom laa shakka ni moom la ñuy dàkkantale al imaamul surtout ci ay taalibeem eh, ndaxam sax ku màgg la laa shakka eh, ku màgg la ay ma yëpp moo leen mag eh, ci xam-xamam Euh, waaye it eh, ci taxawaayam ak ci tasaaroo gi yaatu gi nga xam ni madhabam da tasaaroo moom abu xanifa moomu eh, abu xanifa dàkkantalam la waaye turam dëgg-dëgg mooy an nu'maan nu'maan la tuddoon baayam tudd saabit eh, maamam ñii ne marzubaan la tuddoon am nañu ne zuuti la tuddoon askanam nag mu ngi bokk ci E, ñi nga xam ni ñooy tooroodo yi e, perse ya buñ dee waxin wi wér na wala ña nga xam ni ñooy e, kilifay perse ya perse xeet la wu fi yàggoon ci àdduna ba tey ñu ngi fi ñoo nekk Iran ci seen kilifa ya nga xam ni ñoo bokkoon ña daan saytu ci mbiru xam-xam ca seen xam-xam yooya fameem ci ñooña la bokk maamam bii ñu naan almar almarzubaan ñii naan ko am nañu ne zuuti la tuddoon eh, nee nañu mu ngi tuuboon ci jamono yi Omar ibnul Xataab am nañu ne déedéet ci jamono yi bi ibnu Abi Taalib la tuuboon eh, maamam nag ñoom ñu ngi cosaanoo Kaabul Kaabul mooy capitalu Afghanistan fi mu toll nii Kaabul googu la ay maamam jóge maamam jooju di Marzubaan wala maamam jooju di zuuti nee nañu Kaabul la jóge woon eh, toxu ñëw Kuufa Ah, fa la doon dund eh, maamam jooju ba fa baayu abu xanifa ñu naan ko saabit kuufa googu la juddoo eh, kuufa googu la juddoo abu xanifa it kuufa la juddoo eh, abu xanifa moom mi ngi juddu ci li gën a wér ci atub juróom-ñett fukk ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba gàddaay yonent bi amee juróom-ñett fukki at ca la juddu am na ñu ne juróom-ñett fukki at ak ñett kon daa mel ni moo magee Malick fukki ak ñett ca la gën a wér e, famille mit famille ba mu bokk doonoon nañu ay borom alal ñu woomaloon lool ndax ay commerçant yu mag lañu woon ci jamono yooyu Abu Hanifa it ci tàmbali ak mbiram moom it commerçant la woon waaye yàlla xiirtal ko ci alxuraan mu teel koo mokkal lool yàlla xiirtal ko it ci jaamu yàlla ak def lu baax mu teel a aj lool ndax ba muy aj booba am na fukki at ak juróom benn ci la haj ci lañ aje ajam bu njëkk eh, baayam nag di saabit laa shakk ni ku taqoo woon ak ali ibn abi taalib la yàggoon ak ali lool ba am nañu ne mas naa ñaan mas naa ñaan yàlla ali mas na koo ñaanal yàlla ngir yàlla wërsëgal ko doom joo xam ni àdduna yëpp danañu dégg turam te turam dootul fayati ba faw mm-hmm. ali ibn abi taalib ñaanal ko ci loola eh, nee nañu loolu mooy sababuk abu hanifa li ko sunu borom subhaanahu wa taala jagleel eh, moom Abu Hanifa amoon na ay sëriñ yu bari eh, ña nga xam ne ñooy waa ngiram nag am na ñu ne ci ñoom am na saxaaba yu mu giseel eh, ku mel ni Anas waaye loola ala kulli xaal ay dalul ay yu sax wéralu ko waaye lu ci mën a xew amoon na ay sëriñ yam yu bari yoo xam ni ci taabi'una yi lañu bokkoon ndax jànge na ci lu toll ci juróom-ñeent fukk ak ñett ci ay taabi'un ñi nga xam ni ndongay saaba yi lañu di seeni doom di ñu ñu jamonoon teel e, ña topp nag ci sëriñ abi xanifa bu weesoo juróom-ñeent fukk yooya ak ñett ay sëriñam ya ca des ci taabiu taabiina yi la bokk mel ni moom ci boppam na mu bokke woon ci taabiu taabiin yi e, noona la am njàngam tàmbalee ñu mel noona it la dajeel e, ci wàllu njàngam fiq it mi ngi ko tàmbalee ci sëriñam bu ñu daan wax xamaadu na abi salama wala Hammaad ibnu Salama jàng na ci moom fiq ba yàlla def mu sori ci lool bokk na ci ay sëriñam yi mu jàng ci ñoom fiq ba tey jàng ci ñoom it xadiis ak tafsir ci ñaan Ataa ibnu Abi Rabaax xam ni moo nekkoon mufti Makka ci jamonoom ba boroom xam-xam yi daan nañu wax ni amul kenn ku sañ a ubbee kenn ci masala e, ca nekk ca Makka te fekk Ataa mu nga fa hmm. nit ku ñuul la woon nag moom Ataa daa ñuuloon kukk yàlla tegoon ko it ay nattu ndax dafa pattoon benn bët la woon eh, amoon ak ngaana gu newoon ci moom boole ci it eh, mu doonoon koo xam ni dafa doonoon aqara bopp bi dafa doonoon ay amoon ay góom yoo xam ni dafa takk takkoowoon ak moom mm-hmm. waaye teewul kilifteefam doonoon ab jaamit bu ñu goreel mm-hmm. waaye xam-xam moo tax mu mujje yegg ci dayo joo xam ni am na ay boroomi askan yoo xam ni ci ay ceddo eh, ci ay toorodo yoo xam ni yegguñu ca woon ci jamono jooja mm-hmm. kon ataa moomu sëriñam la moom Abu Hanifa eh, Amr ibnu Dinar tamit sëriñam la woon Muhammadul Baqir nga xam ni doomu Ali Zeynil Abidin eh, moom it jànge na ci moom jànge na it ci doomam biñ naan Jaafaru Sadiq eh, jànge na it ci Ibnu Shihab az-Zuhri jànge na ci ay boroom xam-xam yu bare bare bare bari bare ay taalibeem it noonu la ñu bare danañ ci ñëw ci kanam moom Abu Hanifa nag laa shakka ni sunu boroom jagleeloon na ko palaas boo xam ni palaas bu kawe la eh, ci jamono ja mu doon dund ak ci jamono ya ñëw ci gannaawam boroom xam-xam yi seereel nañ koy ay seede yoo xam ni seede la eh, yoo xam ni ala kulli xaal seede yu yu yu yu am solo la seede yu kawe la bokk na ci ni boroom xam-xam yi daan nañu wax ni moom Abu Xanifa day eh, kuy joxe misaal ci nit koo xam ni dafa setu xalaat am xalaat bu set xalaat bu leer ku am xikma ku am xel boo cay jox misaal doy na ci nga joxe ci Abu Hanifa misaal borom xam-xam yëpp tëgg nañ ko ci ñawam tagg nañ ko ci ñawam tagg ko ci xelam tagg ko ci ak xereñam looloo tax imaam Shafii daan na wax ci moom ni annaasu iyaalun fil fiqhi ala abi xanifa nee na bu dee fiq kese ñëpp rek ci abu xanifa lañ daan sukkandikoo ndax buñ nee fiq moom kenn rawu ko ci xanaa mu raw ca ñëpp moo tax Shaafi'i daan wax ni boroom xam-xam yëpp eh, imaam Abu Hanifa mooy seen sukkandikuwaay ci fiq imaam Malik ci boppam nawoon na Abu Hanifa ci ra'yoom naw ko ci xelam naw ko ci xereñteem loola taxoon na daan na wax ni law araada Abu Hanifata an yuqni an naasa anna hadihi saariyata dahabun la aqnaahum Malik fi mu toog di jàngale Eh, poto yi nga xam ni dañoo nekk ci jàkka yi muy jàkka yonent bi bis wax nañu ba mu tudd Abu Hanifa ne yàlla may na ko xel ak xereñ ak ya ra yu goo xam ni ku mu waxal rek mën na laa convaincre mm-hmm. bu toogoon fii tey photo bii nga xam ni ay xeer la ak suuf mën na laa wax ak yow expliquer la dem ba convaincre loola ni poto bii du xeer ak suuf waaye or la ndax xel bi ko yàlla joxoon ci mën a convaincre ñi loola imaam Malik eh, seedeel na ko loolu eh, Abu Hanifa nag ci tawaadu am yeggoon na ci ne daawul am kersa ci jàng ci ku mu mën a doon xam-xam da koo ñoroon ñor ko ñor goo xam ni daan na jàng sax ci moroomi doomam bu gisee ci moroomu doomam loo xam ni jotu koo xam daan na ñëw jëlsi ko ci yow ci ay moroomi rakkam ñoo xam ni moo leen mag fuuf ay jarbaatam moom daal xam-xam fu mu mën a nekk rek daan na ko fa fekki ngir taataan ca looloo tax eh, bokk na ci ñi nga xam ne jànge na ci ñoom jële ci ñoom ay dars al imam malik te comme niñ ko waxee moo ko mage fukki at bu doon madhab lu ñuy sos la dañ ne la madhabam moo mag madhabu malik waaye teewul ba mu ñëwee madina doon ziyaare si barabu yonent bi ak jàkkaam fekk fa malik di jàngale bis bu ne daan na xëy ñëw ca malik daan jànge ci moom Eh, la nga xam ni moom la Malik yor ci xam-xam te xam-xam yooya jotewu ko moom Abu xaniifa eh, jàng na it ci Shaybaan an wi te daanaka mën na koo jur eh, waaye teewul am na lu mu gis ci Shaybaan ci xeeti xam-xam te moom jotu ko woon a xam mu dem ci moom tëral ko ci moom kooka kon mooy Abu Hanifa ci juddoom ci askanam waaye it ci xam-xamam ak it ci fi nga xam ni foofa la ko boroom xam-xam yi teg Eh, ba tey moom Abu Hanifa moomu yàlla nattu na ko comme ni muy nattoo borom xam-xam yu bari eh, ci seen jamono ci jàmmaarloog bu ñuy jàmmaarloog buur wala cible gi leen buur di sible eh, teg leen toor ngir teg leen daan mas naa am ñaari nattu benn nattu bi ci jamonoy banu umayyata la nattu googu mooy ni dañ ko bëggoon a def bu ibnu hubayra booba moo nekkoon gouverneur ca Kuufa sàkk woon ci moom pour mu jiiteel ko tribinal ba doonub àttekat Abu Xanifa ngantal loola tax na Ibnu Hubayra mere ko ca ne ko dama lay digal nga di sama ndigal tax na mu dóor ko ca téeméeri yar ngir rek ni ñëwal doon eh, doyen des juges wala nga doon juge bu mag bi ci tribunal bi mu ne mu lànk loola tax na kooku dóor ko ca téeméeri yar loola nattu la ko mu amoon Eh, da nattu nag nitu yàlla yeeg boroom xam-xam yeeg yonent yi ku ca ne rek nu tolloog sa martaba mhm. ci la la sunu borom daan nattu amoon na geneen nattu gu ko dalaat ci dundam mu doon nattu gu gën a metti nattu gëlee ba ci nattu googa sax la faatoo mooy ni ci jamono yi eh, Abu Jaafar al Mansour eh, Abu Jaafar it da ko proposé woon pour mu doon xaadi Abu Xanifa dal dina ko det xaadi moom du ma ko mën a doon nga jéggal ma ci abu eh, abu jaafar al mansour xam ne xalifa la woon ca abbas yi eh, doon amirul muminin kooku waat ci yàlla ne ko wallahi yaay doon xaadi bi fii ci dëkk bi ci réew mi abu xanifa it ne ko wallahi duma ko doon mhm. xaadi ba ne ko nag damay waat ngay waat ci la ko tëjee kaso ba ca kaso booba la faatoo mhm. yàgg ci kaso ba lool ba ca kaso booba la faatoo mhm. kon loola nattu la boo xam ne abu xanifa amoon na ko eh, ci dundam naka noonu nitu yàlla yëpp rek mm-hmm. ku ci nekk amoon na nattu gu la eh, sunu borom daan teg eh, ku bëggoon ku ku doon ku doon ku ku ku bëggoon a xam mm-hmm. yu baree baree bari ci yooyu boo demee ci nattoo di kerkeraan mu mm-hmm. sëriñ Moussa Ka da nga fa fekk lu baree bari te ña nga xam ni sunu borom nat ay borom xam-xam ak i wali yoo ki nitu yàlla ak i yonent yoo xam ni sunu borom nattu woon na leen eh, ci seeni noon ba ñu teg ci seen kaw ay mitit yu baree baree bari a Bamba Euh, misaal la ca loola. macha allah. Euh, kon ñooñu ñoo nekkoon kooka mooy Abu Hanifa euh, ñooñ foofa it moo nekkoon jaar-jaaram nattu yi ñooy nattu yi ko gaar ci dundam ba ci nattu mujj wii ci la génne àdduna kon lii moo doonoon suñu jataayu tey wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëfati Cheikh Abdoul Ahad eh, yaakaar naa ne ñi ñi topp tey seetantel jataay yi eh, bind beesaat na ci imaam Abu Hanifa eh, te loolu nekk dàkkantelam mu tudd Nu'man ibnu Sabit yaakaar naa ne feeñ na ci sa biiri wax ne jaar na ci lu mat juróom-ñeent fukki sëriñ yoo xam ne ñenn ñi ndongoy saxaaba yi lañ wala ñuy doomi saxaaba yi moom moom ni mu bokkee ci eh, ñooñu eh, tegtale it ne eh, ku dëgëroon la ci li mu nekk ku ci amoon ak way la waaye te itam ku amoon ak wàcc la ci sàkku xam-xam ci amu ci woon génn rëy ci fépp fu xam-xam nekk te te te te mu joti fa feeñ na it ne Eh, boroomi xam-xam seereel nañ ko xam-xamam eh, te loolu bokk na ci ku mel ne imaam Safi ak ku mel ne imaam Malik eh, xam nañ ne boroomam xel la ku xereñoon la ci xam-xamam kon yaakaar naa ne tomb boobu yaatu na lool gën naa leer dañ la ciy sant bu baax a baax gërëm la ci joxaat ci rendez-vous téléspectateurs yi ci beneen numéro ci imaam Abu Hanifa seen mbokk taalibi Fallou Galass Syll feggoo ak Serigne Fallou Syll ci wàllu machine bi ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen joxaat rendez-vous beneen jotaay wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.